dafa bari façon nag. Mhm. gis nga saay-saay bi à chaque fois bii yàq doo ko gis. Mhm. saay-saay bii yàq am na ñoo xam ne milliardaire lañ multimilliardaire mais ñoom dëkk bi tàkk ba ñu dugg pour jëlewaat fa ay milliards moo tax ñu am xaalis fit dëkk baa ngi stable mu ñëw mënuñu koromp kenn seen mbir du dox léegi nag réew mi dafa dem ba doo xam kiy fëgg sa dënn parce que réew mi dem na ba yow sénégalais bi sax sañoo ne sénégalais nga sañu ma sax maanaam da ngay gis xëy na dëgg la mën naa bañ a jàng mais mën naa am ñu ne ci sama wet ñu jàng ma ne damaa soxla mairie bi wala dama soxla lenn ñu ne kii kii mooy kan dama bokkul ci réew mi. Mhm. Pikine laa juddoo. Mhm. demee ni mhm. yor carte Sénégal comme ñëpp. war naa mën a tàllal sama loxo. mais da gis ku weñ sama loxo. tuutal ma xeeb ma toroxal ma. xool sama ayibu démb xëy na xam am na lu ma xamaloon parce que gis nga euh, nit ki. Mhm. day am jaar-jaar. mënoon mhm. naa di màndi mbaa may tux yàmba mbaa may def lu bon mhm. xëy changé yooyu la dem jëli buñ ci amee dara génn ko léegi jaay doole dafa dem ba wan la fëgg maanaam léegi nit ñi kenn xàmmetul maanaam borom alal yi danoo dem ba moom ñu Sénégal nag dégg nañ fi or dégg fi pétrole. dégg fii yi ñu fi dégg boobu ba léegi wax dëgg yàlla dañ koy dégg rek waaye mosaguñ ci dara bi nekk côté Kajoor gi dégg naa boobaak léegi ña dëkkoon ci côté kër yi sax dañ leen a tuxal yóbbu leen tabaxal leen ay kër nax leen ba ñu dem ñoom as néew ñoo ciy dem di liggéey te ñu lañ cay liggéey maanaam dañ leen jaay doole jaay leen lépp amuñu ci dara te fa lañ dëkkoon lépp feeñ fa kon ñoom waroon nañ cee gis seen bopp. Mm-hmm. pétrole bi dañuy dégg rek chaque jour dañuy dégg lii am ci Sénégal. te dara gisaguñ ko ci fi muy jaay doole bi dafa dem ba doo xam ci kaw la doo xam ci suuf la fi mu nii daal nit da ngay dox nii rek mais is sa jaay ñu. jaay ñu ñu bien alors Sophia. Mm. <coughs> pour ñu gën a mën a xootal waxtaan bi parce que c'est important aussi ñu ñuy seetaan mën a xam ci la la ñuy waxtaane mais euh, le mot corruption corrompre. Mm-hmm. ci naka lañ ko waree mën a définir mu gën a yaatu ci suñu xel. alors. Euh, ko defee ñu mën dugg vraiment ci waxtaan bi. parce que phénomène la quoi. corruption tubaab bi di ko wax corruption euh, olof Ndiaye di ko wax nger maanaam mooy jënd. Mhm. jënd nit ki ngir mu defal la sa soxla mu fajal la sa soxla loolu mooy corruption. corruption nag euh, boo duggee ci yenn domaines yu ci bëri def ci bëri rawatina dans le domaine politique. Euh, boo ci duggee tey ci mouvance bi nga xam ne moom la ñu nekk muy élection présidentielle on voit certains de nos candidats yoo xam ni euh, bon jiitu na suñu juddu loolu depuis yàgg na mm-hmm. ba dem na ba léegi sax Sénégal mm-hmm. lépp looy defate rek danga naan may fils jox ko dara mm-hmm. boo bëggee sa yëf gaaw boo bëggee mu faral la jox ko dara soo ko joxul dara soo joxul dara doo gaaw am li nga bëgg surtout ci domaine bi nga xam ne mooy domaine politique bi tey y a de l'argent qui est mais am na partie boo xam ni ànduñu ak yow fi ñuy fi ngay bëggee yow personnellement ñu àndee ak yow c'est-à-dire da ngay jël xaalis tuuf leen cest à nga jënd leen moom mooy corruption bi nga xam ni moom la ñu waxtaanee tey te yooyu yu ci bëri des fois Sénégal dem nañ ba yeewu ci de telle sorte que xëy na euh, mën nañu jël sa xaalis waaye li nga bëgg doo ko am la preuve élection yi jàll surprise yi dafa bëri te loolu defe naa euh, nit ñi yeewu nañ ci de telle sorte que euh, amatul mucc goo xam ne tey li nga bëgg di ko am dans le domaine de la télé am na fi on voit certains animateurs yoo xam ne il faut nga tuuf leen ci yenn artistes yi il faut nga tuuf leen pour mën a def émission wala ñooñ uy uy wala dañ lay laaj te yu ñàkk fayda lañ lay laaj duñ la laaj sax lu bëri jox ma nangam ma invité la ci émission. ah carrément. waaw am na ci ñoo xam ne c'est des jeunes talents noonu lañ leen di chantager. alors que dañuy fàttali ne la roue tourne. waaw la roue tourne bu ñëw nekk xale. nga war ko jàppale war ko jàppale war ko tàllal loxo bu màggee. waaw yow booy daw ci gannaaw bu xoolee loolu rek. nga xam ne ne bu doon yow. da lay xeeb voilà da lay xeeb. te ñu koy def. malheureusement bon boo leen gisee respecté leen mais ñu ci bëri dañuy tàllal loxo ci yenn artistes yu ndaw yi. ci domaine télé laa lay wax de. Ah. nga dem ci tali bi. Mhm. certains ci ñu ma ko mën a wax am na policiers yoo xam ne dañ leen ko romb. waaw tey mën naa ñëw sama carte grise baaxul. defuma visite technique. Mhm. nga war ma jàpp war ma bindal loo xam ne damay dem. fay ji noo dama lay jéem a tuuf dara. nga bind ma dara ma dem bu ma demee sa beneen morom bu xaw mel ni yow. mu laajaat ma dara. wala mu ne la wéev ma ñu baal ma ci publicité bi. Mm-hmm. mën a jot sa papier wala dara en fait dañ toll ci benn monde boo xam ne tey jii euh, ñun ñëpp dañ dañ dugal suñu bopp de te sorte que euh, boo jëndul dara doo am ni nga bëgg. ba ci da ngay dem des fois ci hôpital yi en cas d'urgence nga ñëw fekk koo xam ni dafay nekk ci besoin d'assistance nga war ko mën a jàppale mu leer na ne kii assistance la soxla mais bon yaa gis koo xam ne mooy. isaa bu am fit rek nekk ci benn gardien hôpital day ñëw ne soxna si bu fekkee da nga bëgg dem yàqamti tuufal sa waay dara pour ñu dugalal la doubler la ran yi mm-hmm. Mm-hmm. alors que y tout le temps des urgences yoo xam ne ñu ngi taxaw pour rang pour dugg donc bu fekkee yi ñu mën a wax ci corruption ci Sénégal mm-hmm. ci yoo xam ne yu sensible la bëri na fi te loolu je pense am na lu ci l'islam wax te euh, oustaz nañu ko yaatalal mais taxu boo bëggee dégg-dëgg ñun ñëpp suñu bopp bu ñu bëggee dara il faut ñu def dara pour mën a am dara muy corruption bi ñuy waxtaanee tey. bien mm-hmm. et je pense que ne euh, Serigne Doucouré dinañu gën a leeral mbir mi ci mm-hmm. wàllu l'islam mm-hmm. lan l'islam wax ci ki nga xam ne dey corrompre mbokkam ah, donc euh, je pense qu'on va en parler tout à l'heure alors Nancy euh, yow bu ñuy wax la corruption phénomène prenant de l'ampleur ci fànn yëpp nag yow mooy sa xalaat ci loolu. Euh, ñëpp xam nañ ne que euh, la corruption déjà c'est un délit mm -hmm. et aussi que mën na nekk direct ou indirect parce que y en a ñoo xamante ne ni dañ lay corrompre directement d'autres mm-hmm. di la sous-entendre une corruption donc déjà c'est un délit ñu xam ko déjà ni xam ne que délit la nekkul lu rafet lu ñu ñaawlu la aussi mais dem na ci réew mi jël ampleur boo xamante ne dafa mm-hmm. dem ba mel ni lu bokk ci suñu dund bokk ci suñu yar ba ci ci suñu culture dafa dem ba jël ampleur boobu parce que xale sax boo koy yónni bu njëkk dina la demal gratuitement. léegi boo ko neexalul du dem waaw mi ngi xalaat nag ndax dina ci am wecc ci liñ mm. koy yónni. Mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, nekk na loo xamante ne dafa jël ampleur comme vous venez de dire. nekk na lu lu dem ba mel ni lu bokk ci suñu ay jikko te waru cee bokk. donc il mm-hmm. faut tam ñu leeral nit ci que ne c'est un délit pour ñu xam ne lu lu fi war a jóge la aussi. mignon. waaw waaw. xam nga corruption. Mm-hmm. cor. mu lay jox benn anecdote. Mm-hmm. dafa am benn élève benn élève. mu jël avant daare. avant daare. jëkkër Sofia <coughs> mag ji jël deuxième seen compo dem seen pap pour mu signer kaye bi. ki jël deuxième moo njëkk dugg pàpp ji jàpp ko xas ko dóor ko saaga ko. te deuxième la jël. te deuxième la jël booy bi jooyul de daa génn yem ci raq ji rek daal jooy bu mu jooyee mu ne ko dara mu dugg xool papa ji jox pàpp ji kaye bi papa ji signé. al dem mu ne ko yow lu xew sam papa dóoru la saaga wala def la dara mu ne ngeen fàtte sam papa ancien policier la biir kayib dafa <laughs> dafa lépp <laughs> dafa lépp korom du gaaw jug fii déedéet corompe nga fépp man mii léegi flaglandri la ma kii corompe <laughs> ba may ñëw dama laa waajal mhm. dëgg neexul mhm. ba may ñëw dama laa waajal tey moom jàmm rek laa dégg amal noo mel ak man mhm. waaw ma loolu mel ak man mooy buggee <laughs> après ñu gisee ah. corompe ngi <laughs> exemple bu mu sori maa ngi exemple baa ngi léegi nag àdduna tëri nii man nag maa ngi ànd ak si ñii nga xamante ne dana war a ayoo bu leen fi kaas ko korom korom day doxal réew. sama si sama côté. naka lay doxalee réew. si sama côté si sama côté day dox koromp gi fépp man émission bii naa si teg ci nit ba mu koromp ma <laughs> du jeex. te léegi amul solution bu nga bëgg a wax. aw ma solution korom dafa dox marché liggéey bu dox la man ci lay dama koy def. papa maam Thierno mi ngi lay seetaan. na ma seetaan. bu ndaw laa wax de. na ma seetaan sa doom. yow Sofia bi kii dafa yaakaar ne Sofia bi Sofia dafa yaakaar ne man na ma seetaan nag korom nga fépp roxu korom. si sama côté la wax man ma waxuma ma keneen man la keneen di dund man. waaw mais papa li ngay def ni se trop grave parce que am na ay personnalité adduna yëpp a ngi lay seetaan na ma monde bi yëpp seetaan sa concerne que moi. la loi article deux cent la loi article deux cent soixante dix mille deux cent soixante quinze laa ci bokk yemale. ma sama poos laa fi nekkal. dañ lay jël si de. Eh! sama poos laa nekkal man. Ah. am am na yoo xam ne am na xam ne kenn du ko café ah. Eh. <laughs> li nga wax de kenn du la ci jël. Eh, dama lay laaj ndax yow eh, am naa ci droit wala amul ci droit raxu yaa ngi xeex loo xamante ni. <laughs> ànduma ak yow déglu rek corruption war a ko fi woon wax. Oh. war a fi woon wax corruption. léegi. waaw dañuy waxtaan. maa ngi lay dégg. message na. xale yi nga. xam dama lay laaj xale yi nga xam ni dañuy yor seeni moto di dawal. yor seeni casque. yor seeni kayit. di daw police téye leen duñ sax lijjant dañuy jël caabi rek dem taxaw fale dañuy jël jël seen moto. arrêté la jël seen caabi dem taxaw fële. xam nga moto yi sax ñoom am na ñoo xam na sax duñ leen laaj yenn kayit yu metti yi xam nga maintenant man damay gis ni souvent buñ la arrêté wala ñu laaj la mais dañ lay arrêté rek jël caabi rek dem taxaw na le waaw waaw loolu nu ñu koy tuddee te booy bi bu ñëwee dina jël dara jox ko mu jox mu dem loolu nu ñu koy est-ce que ah, loolu waaw mais est-ce que loolu yow sa xalaat loolu baax na ci xale bi nga xam ne ne mu ngi wut liggéey wala mu ngi bëgg dimbali njabootam léegi yow loolu waaw loo ko tuddee non moo tax nga may laaj. waaw moo tax ma ne la ku dawal moto. si réew mii. jër nga wut këyit jër nga wut assurance. say këyit mooy sa kalpe. Ah. wax da nga koy ñemee. ba nga bàyyi ñëpp a ngi lay seetaan mais wax mais yow yow yow yow barki démb mooy Ndiaye policier jàppale fa nga ne man abal ma deux mille man mii man de ma sosal man moom je suis toujours en règle waaw je suis en règle waa léegi ma affaire bi loolu la parce que si nga c'est-à-dire xam mi réew li ngay wax baaxul de waaw leen ma ma tamit dama war a wax waaw ah, parce que ñun ñëpp da ngeen wax ma toog ne ah, pot ngeen yaakaar damay nelaw nelawuma yaa ngi dégg da ngeen toog di wax li ngeen xalaat ma am loo xamante ne gaaw jugee loolu ngeen bëgg dégg mooy lu ngeen bëgg dégg laa la ñu wax corrompe du fi gaaw a jugee développement boobu ñu dañ ci am part de responsabilité. Mm-hmm. nana maa bëgg ngeen déglu ma. yaa ngi doog a ñëw nag. dañ ci am part de responsabilité. c'est-à-dire. part de responsabilité bi xam nga mooy lan. loo amul règle. policier bu la waxee jox ma lii na la bindal facture. Mm-hmm. facture bu génnee say bagages. non reçu la lay jox quoi da nga da nga dem fay attestation attestation nañ la. ku ki nga xamante ne dañ lay jox attestation mais policiers yi ñooy si boppam ñoo lay wax noo ko bëggee. ah bon waaw. ok ak ay policiers mm-hmm. du ñëpp. non lépp loo gis se c'est général. Mm-hmm. ba léegi nii damaa toog si man laa njëkkee jël exemple. Mm-hmm. man su ma jëlee si man exemple may waxalaale animateurs yi nga xam ne dañuy def ay corrompre.